بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الحق ورافعه ومذل الباطل ووادعه والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندلسي واتي سنو جوتايو داره جوتايو مجالس نغخمن نيو في تشامبر مواقف السلف الصالح وأحوالهم مع تدبر القرآن salaf muy mag ñu baax ña nan la ñu daan dundee ak alquranul karim bi nga xam ne moom mooy sunu cër di sunu ndam mooy sunu rëccuwaay tey ak ëllëg ci kanamu borom bi subhanahu wa taala tey nekk sunu juróom-ñaareelu jotaay waaye di dooree rek di nuyu waa kër gi bu baax laa maison du Coran mu nekk kër gu nu ubbi ngir képp koo xam ne yaa ngi safoo alquranul karim waaye di dund alquran ci réew mi ak bitim réew yëpp di ji ñaanal bu baax. ki nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp bi muy Cheikh Abdallah Aziz kamara yal na yàlla yaatal liggéey bi mu baax a baax insha rabbi jalla wa ala tey nag ci suñu juróom-ñaareelu jotaay ñu bëgg andi lenn ci taxawaayu mag ñu baax ña ak càmbar alquran al karim ba mu daan jur ñu jooy ci lool waaye mu daan def ay jeexital yu rëy ci ñoom ñun ñu war a jànge ci ñoom tey jii ci alquranul karim ñu njëkk ci ki nga xamante ne moom mooy imaamu nabiyin muy jiital yonent yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fas yéene nettali leen ci ay taxawaayam ak alquranul karim te moom la yàlla jéggal ay bakkaaram yu jiitu ak yu mujj waaye taxul mu naagu mukk mu doon dund alquranul karim suba ak ngoon guddi ak bëccëg dan cay jiitalee rek loolee nga xamante ne mooy xadis bi nga xam ne Abdurazaq moo ko nettali ak Saïd bun Mansour ak Ibnu Abi Shayba ak Tirmidi mu nettali ko ca sunan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba saxaaba yi dañu ko xool ñu ne ko shibta ya rasulallah yonent yàlla Muhammad yaa ngi bijjaaw parce que ñoom dañoo ragaloon bijjaaw ci yonent bi dañoo ragaloon yonent yàlla Muhammad màggat parce que xam nañ ne màggat jege dee la loolu noonu nag nañ koy comparé ak xadiisu Anas boobee nga xamante ne moom moo ñëw yont bi bari wut woon ay béjjaaw comme niñ ko mën a tuddee ci bopp waaye gay màggat xam nga nit ki su fekkee ne da nga am njàkkare booy xalaat ak loo xam ne da ciy xalaat lool day gaaw a feeñal mandargay màggat ci yow yont yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam saxaaba yi gis loolu ci moom ñu ne ko shibta ya rasulallah yont yàlla Muhammad béjjaaw nga ca la tontoo woon xadis bu siiw boobe xadis bu màgg boobee من شيبتني هود وأخواتها شيبتني هود وأخواتها سورة الواقعة والمرسلات وإذا الشمس كبرت وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت جبن رواية مبولة سورة النبأ ويعم يتساءلون yontiyal محمد عليه الصلاة والسلام نين أي سارة جنين يوم يوم بجاولو sahaba تك من لين سورة هود أكي أي مكم ak بجاولو saar yooyu laa nekk di xalaat saar yooyu ñoo ma jaaxal saar yooyu laa nekk di càmbar ba ñoom ñoo ma bijjaawloo saxaaba yi ni tekk mu ne leen ay mbokkam xam ngeen leen mooy suuratul waaqia ida waqaatil waaqia allahu akbar saar yoo xam ne suy wax ci yowm alqiyaam laa hawla wala quwata illa billah mu ne wal mursalaat ida shamsu kuwirat ida samaau nshaqat ida samaau nfatarat yonti yàlla muhammad nee ne saar yi ñëw ma bi jaawloo kon jot mbokk yi jot na sax ngeen dem xooli saari yi càmbari ko na ku nekk note saari yi dem wuti ab sëriñ daara nga ne na dama bëgg nga wax ma saari yi lan moo tax ñu war a mën a bijjawloo yonti yàlla muhammad saar yi lan lay wax ba tax yonti yàlla muhammad di ko xalaat ba talatul dara bas saxaaba yi comme ni ko abdullah ibnu abbas nettalee mu ne abi bakrin siddiq radiallahu anhu dane ko yaa rasulallah yow yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalam lan moo la bijjaawloo ci sooratu hud ak ay mbokam sooratu hud ndax sar bi yep moo la bijjaawloo yonent yàlla muhammad ne ko la ayatun wahida waxida abdullah ibn abbas nee abi bakr bakrin sadiq daf ne ko lan moo la bijjaawloo halakul umam am qisasul anbiya ndax xet yu jitu yoy nga xamne ño toñon yàlla yàlla mbugal len ndax yow da nga ragal sa xeet ñu tooñ yàlla yàlla mbugale leen noonu ba moo la bi jaawloo wala nettalib yonent yooyee moo la bi jaawloo yunt yàlla Muhammad ne ko benn aaya ca suratu hud mu ne ko waxu buur bi subhanahu wa taala mooy aaya téeméer ak fukk ak ñaar ca suratu hud fastaqim kama umirta wa man taaba maak wala tatgaw innahu bima taamaluuna basir la ilaha illa allah yàlla ne ko yow yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam fastaqim jubal jubal jubal kama umirta comme ni ma la ko digalee allahu akbar ihdina siraat almustaqim bés bu nekk ñu taxaw kabbaar ñaan yàlla mu gindinu yoon ko jub ga parce que yàlla dafa bëgg nit ko jub mooy nga jub te Sénégal ngay gis ay nit ñoo xamante ne dañuy woote ne dañoo jub te ñoo gën a dëng garabu yoo garabu yoo ñoo ko gën a dëng nit ku jub dafa yitteel yàlla yàlla dafa bëgg nga jub jub leen balaa ngeen di tal leneen fastaqim kama umirta yàlla ni yonent yàlla Muhammad jubal comme ni ma la ko digalee mu ne ko ak lan wa man taaba ak képp koo xamante ne ànd na ak yow maanaam yow ak sa waa xeet yonent yàlla Muhammad ko jubla ndax yàlla tagg na ko ci côté yëpp waaye lan moo ko jaaxal comme yàlla nee na ko jubal comme ni ma ko digalee yow ak ñi nga àndal est-ce que ñun daañu jub comme ni nu ko yàlla digalee la hawla wala quwata illa billah yonte yàlla Muhammad xalaatul boppam ñun lay xalaat kon nanu góorgóorlu loolee nga xam ne moom la yont bi doon xalaat ba mu ba jaawloo ko yàlla jottali nanu ko nanu góorgóorlu ñu jub wala tatxaw bu leen beew ndax na leen leer ni ñëpp yàlla dee innahu bima taamaluuna basir yàlla teg na ay bëtam ci lépp loo xam ne ñu ngi koy def guddi ak bëccëg suba ak ngoon mbokk yi xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne moom la yàlla jox alquran pour mu jox ñu ko xoolal na mu daan dundee alquran di jël aaya yeeg saar yi di ko càmbar di ko xool na nanu góorgóorlu donte benn saar nga xam ci alquran góorgóorlul nga xam lu muy firri na la jaral nga taal sa oto dem seeti ko xam alquran ne ko firril ma saar wi firril ma laaya gi firril ma baat bi ci alquranul karim su ma ñëwee ba ci salaf dinaa leen andil lenn ci sëriñ si nga xamante ne benn baatu alquranul karim bu ñu xamut jaral na leen ñu war fas wala war mbaam wër dëkk yëpp ngir xami baat boobu ku mel ni imaam Shafii imaam al Buxaari ak ñeneen ak ñeneen daañ ci ñëw yii soo koy liir sax dangay ngay rus xoolal téléphone allo diw baat sangam léeg-léeg mën naa toog ñaari semaine ñetti semaine kenn ci ndong yi kenn moo lay woo ngir benn aaya alquranul karim ku la woo soxlaam soxlaam soxlaam nañu dund alquran ni ñoom yonte bi sallallahu alayhi wa sallam benn bés comme xadisu abdullah ibn abdullah ibn mas'ud nee na benn bés yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ma wax ne iqra alayya dama bëgg nga jàng alquran ma déglu la abdullah mas'ud daal di jommi mu ne ko yow yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam aqra'u alayka wa alayka unzil ndax damay jàng alquran nga déglu ma te ci yow la ko yàlla wàccee yow yaa dàq ñëpp jàng alquran yonent yàlla Muhammad ne ko naam ci riwaaya ba beneen riwaaya ba mu ne ko naam uridu an asmaahu min gayri ca beneen nettalin nga naam uri ashtahi inni ashtahi baatu ashtahi ñi dégg arab xam nañ lu muy tekki ashtahi an asmaahu min gayri daf may neex lool dama yëg lool yëg bànneex lool ma déggee alquran ci keneen ku dul man kon ngay toog di dégg alquran ci keneen muy jàng problème boo mënti am dina la jaral nga wari ku mën jàng alquran nga ñëw jox ko xaalis bu bari sax ne ko na jàng benn saar rek nga déglu ko soo ko dégloo rek problème ba dafay jeex Abdullah ibn Mas'ud daal di commencé suratul nisa muy jàng di jàng di jàng ba léegi yegg ci laay ñeent fukk ak benn fa kayfa ida ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida allahu akbar yàllay nettali yàllay wax ba mu ne yonent yàlla muhammad bu yowmal qiyaamee xeet wu nekk ma andi leen ab seede andi yonent bi ne ndax jot maanaam xeet wu nekk ma andi seen yonent ne ko ndax jottali woon nga waaw ñoom it ma laaj leen ndax jotoon ngeen yow xitam ma daal di lay taxawal wa jina bika ala haulaai shahida ma andi la nga war a seede sa xeet wi Abdullah Mas'ud nee na bi ma yeggee foofu rek yonent yàlla Muhammad ne ma xasbuk xasbuk xasbuk baax na baax na baax na doy na doy na doy na baax na nee na faltafata ilay mu daal di gestu ci yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam fa ida aynaahu tadrifaan mu gis ne yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam mu ngi jooy kon mbokk yi ndax ñun tollu nañu ak alquran fi li mo nekkon sunu jotaayu juroom ñaarel bi tay ji ci jotaayu majalis as-salafu ma alquran ma kana min sawabin fa min ar-rahman wa ma kana min khata'in fa min nuqsan salla al-ilahu ala an annabiyi wa alihi ma labba mulabbin aw tahallala muhrimu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh